salaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatulah. papa tur euh, lañ may wax. moom laa tudd amadu Sarr. Amadou Sarr ñu koy wax Pa Sarr dëkk Abo Siis. Euh, pa Sarr euh, bu déggee wala ñu gis sa jëm dañu xam ne ne xale yaa leen magal. Hmm. bon yow ñaata at leen mën a wax ni yaa ngi ko si équipe bi. équipe bi maa ngi si plus de 40 ans maa ngi si équipe Guédiawaye FC maa ngi si plus de 40 ans. depuis dañ fi ñëwoon seet si Guédiawaye FC The benn groupe WhatsApp boo xam ne ñi ngi fête seen deux ans. Mm-hmm. tey jii. ñu doon laaj tey lan nga mën a seede si xale yooyu ak nan nga gisee groupe WhatsApp boobu. xale yi euh, premièrement li may seede ci ñoom euh, boo gisee ma nekk seen biir xale yi am nañu yar am nañu teggin te lépp lu ñuy def ci cadre sport lañ koy teg. te lool rek la ñuy waxtaan waxuñ ci beneen cadre lu dul cadre sport te Casa Sport bi ñuy wax dañoom bokk ñoom ñëpp Guédiawaye football club te Jamil Faye diriger ko di nekk président bi ñu ànd ci ak moom ànd ci ak xale yëpp loolu moo tax xale yi dajaloo nekk sa nekk benn ba former seen groupe WhatsApp ci biir Guédiawaye FC groupe WhatsApp boobu nag am na lu bari loo xam ne indil na ko ci Guédiawaye FC indi na ko ci aussi ci réew mi ci Sénégal sax laay wax parce que groupe WhatsApp bi biñ ko créé gis naa ne presque club yëpp après Guédiawaye FC ñëpp toppandoo roy nañ leen euh, créer ay groupe WhatsApp au sein club. donc kon loolu lu baax la bu fekkante lu baax kenn du leen roy donc loo gis ay doomu aadama di ko roy rek dafay fekk lu baax la. loolu tax seen groupe WhatsApp bi la ñaan rek yàlla na ko yàlla saxal te yàlla seen ànd bi yàlla gën ko dëgëral te def ko ànd sunna waaw. dafa mel ne xale yi yar nga gis si ñoom ak teggi mais est xale yi yar nga gis si ñoom am na lu ñu implanté si biir géejuwaay wala si biir stade bi wala si biir équipe bi ba nga xam ne ni nit mën na ko gis waaw loolu mën nañ ko gis parce que bu fekkee yow vraiment da ngay xool xam àddina yàgg ci àddina yàgg dem ci sport euh, yàgg surtout Sénégal gii ñu nekk xale yi bi ñu formé gée seen groupe bi ba pare nekk ànd ak Guédiawaye FC am na changement bu bari lu ñu indi au niveau des supporters du Sénégal parce que terrain bu ñu dem dañuy wane seen discipline wane seen yar wane seen pasté wane aussi ni supporter équipe dafa nekk une nouvelle génération boo xam ne dañu incarner beneen façon de supporter ba gis naa ne sax maintenant am équipe yu bëri supporter yu bëri dañ leen di roy parce que ñoom dañuy ñëw di supporter comme en Europe amul violence amul dara ñoom ñëpp dañuy niroo ay maillot sol seeni maillot soit bleu soit jaune

dëgg moom la yàlla bëgg lépp looy def rek nekkal ci dëgg boo nee ci dëgg bul ragal dara bul en arrière daf ma daan wax ne euh, yàlla ñëpp la fi nekkal looy def nekkal ci dëgg rek dëgg moo jëkk mooy mujj waaw fii la ñu jëkk a joxe raison fii lañu ñu commission d'appel joxe dëgg am ay ñoo xam ne ñu ngi ci biir fédération teg ci seen tànk dëgg googu ñu bañ ko nasaxal ko pour pour Jamil ak Guédiawaye FC bañ a compétir te loolu dañ ko tegul pen ba Jamil yóbbu dossier bi taas taas dañ ko yóbbu nag man yaakaar naa de dañ fa am ndam parce que mënuñoo am ndam fii bañ a dem foofu taas ñu am ndam yaakaar bu mas sëkk la ñu am loo yaakaarul bul ci dugg loo yaakaarul leen loo ci am ndam bul ci dugg waaw. papa lan de la fin. daal mooy euh, maa ngi leen di ñaanal yéen ñëpp di leen féliciter parce que Pastef bi ngeen am depuis un

ñun nekkuñu fi di contre qui que ce soit projet sportif la ñu wax. projet sportif bi nga xam projet sportif bi nga xam ne moom la Jamil teg àddina yëpp teg ci seen bët géejawaay di progresser di dem ci kaw ñëpp gis nañu ko ñun loolu la ñuy xeex ku ko yàq képp ku ko yàq dañuy xeex loolu bañ am. parce que projet sportif boo boo xam ne géejawaay actuellement ñu ngi koy dégg un peu partout le géejawaay FC ñu ngi koy dégg un peu partout au point de vue discipline au point de vue résultat au point sur le plan sportif puis en Europe da nga fi gis ay moyo géejawaay muy maintenant en Europe donc euh, Jamil am na lu mu def ci géejawaay dafa am fu mu fekkoon géejawaay ah am dans l'amateurisme il ko a ko au niveau professionnel la mu waxoon en 2017 je serai champion mu ngi ci tànk yooyu la nekkoon gars yi ko mais bu ñu fakastal 2017 bobu ci kattanu suuram dañ doon nekk champion du Sénégal waaw loolu c'est euh, Guédiawaye info Info, c'est bon parce que actuellement Guédiawaye info mu ngi informer toute la population de Guédiawaye hormis Guédiawaye mu ngi informer les populations de Dakar ñuy xam li xew ci Guédiawaye Hein? donc info info boobu dafa am importance parce que nit boo ci foo dëkk da nga war a xam dëkk ba lan moo fay dox bu fekkee da nga ne Guédiawaye laay yeewoo da nga war a xam Guédiawaye lan dox donc impôt Guédiawaye lu am importance la loolu na ngeen ko gën a yaatal gën ko saxal pour képp ku yeewoo ci Guédiawaye xam lan mooy Guédiawaye parce que ëllëg ak si biir mën ngaa jógee Guédiawaye gi dem en Europe dem aux États-Unis wala dem en Asie ñu lay wax Guédiawaye doo ci xam dara te ngay yeewoo Guédiawaye di nekk doomu Guédiawaye loolu loolu dara jaru ko donc impôt Guédiawaye c'est très bien pour informer les gens pour informer la population de pour informer les Sénégalais lan mooy Guédiawaye waaw loolu la. je vous remercie jërëjëf jërëjëf.